برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ومدنا ذوي الفيض مولانا الشيخ احمد محمد التجاني عن خليفته في الارشاد والتصريفات مولانا الشيخ ابراهيم بن حياه الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ay nuyu borom jant bi fi toog ci muy xalifa bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Macky teewal man itam téléphone na ma ci suba ne ma booy may yéen itam nga teewal ma ñu amal sama gàtt ndax mag lu da waxtu bu ngay jóg jóg waaye amoon naa yeneen pour dem te loolu dëgg la ñeneen ma amoon naa yeneen lool waaye ma eewoon ni suma yaram eewoo ci laa xamee du ma mën a dem moo tax boo demee booy wax nga waxale kon ñu ngi leen di jotal nuyoom ak ay ñaanam ak ay ndokkeelam di leen jot itam nuyoo yi Fatou Zahra mi nga xam ne moom ngeen ko tuddee mu yoo xam ne kontaan na ko lool ndax moom su noppee waxul sax boo ñëwee ba waxee moom ci liggéeyam mu ngi yëngu te loolu war na ndax bis bi ko bàyyi ngeen te ci Kossy Alaaji Mouhamed Zeynab fii la jógee kër Yoro dem Kossy war fas am demee ne bàyyi dars fi yi fi doon jàngale yëpp tey maa koy jàngale ndax damaa bëgg Zahra mii bu màggee ëllëg buñ ko waxee ne ko sa bàyyi fu mënoon a jàngale la na ko waaye sa yaay itam mënoon a jàngale te ñaari am kon kooku buñ ko tuddee miskiin bi yaayam boobu dafa lay ko rëy ba xam ne benn teranga féetewu ko kaw te moom mu ngi xaaj Amar Zeynab waxtaan ci moom du jeex bopp comme li ma waxoon mu daaw jeex géej la koo xam ne amut tefes du jeex bopp waxtu wu nekk rek ay mbaaxam ñu ngi sulleeku ay waxam ñu ngi sulleeku yoo xam ne ba léegi lii mën naa waxoon naa ñoom Baye El leen nañ góorgóorlu tashkil benn lajna boo xam ne danañ dajale waxam yi mool ko nit ñi jëriñoo waaye maa ngi ciy dimbali ko fi mu nekk Oustaz Babacar Ba bi ndax bi nga tudd sànq muy wax ci tariqa bi raw du moom Alaaji wéy na ko ci juróom-ñaar téeméeri bayt waaw Seydina Kabir Faye moo ma ko waxoon mu ne ma man am naa xasida bi mu ngi suma téere am naa ku wax ak doomam Baye Faye mën naa ci boobu ak yii nga gis Fuuta ak yeneen yi gis feneen bu leen boole dana nekk njëriñ lu rëy ci tariqa bi dana nekk njëriñ lu rëy ci ci biir umma bi ndax moom mooy jubatu zaman la ci lu nekk dégg naa maam El Hadj Abdoulaye daan na wax ne bu leen ko gisee wasifa ji wut bu leen ko ci lor bu leen ko ci roy ndax alaaji nga xam ne buñ defee baax na buñ defee baax na yàlla topp la ci wàllu ko gisee dem wasifa ji ci loolu am waa ji diis dina la bu jafe la su demee ba seede loolu ci nit rek mooy kooku ku yàlla màggal loolu seedeel na ko loolu wax nañ ne yaayam jox na baayam lu nekk pour am ku mel ni alaaji waaye dafa am suma benn dëkkandoo mu ñëw alaaji loo ngeen naa jël dama daan wax ne ma gis nga buñ la joxee sëriñ joxe woo sa bopp bu la jëriñ ah mu ne ñu la joxee na fekk yow itam nga su nekk joxe sa bopp mu ne su boobaa nag jëriñ di door a am waaye loolu rek mooy dëgg yaayam daf ko joxe ba pare moom itam jox bàyyi ko ko di ko liggéeyal guddi ak bëccëg ci li bàyyam bëgg li bàyyam gën a bëgg muy xam-xam mu di ko ci liggéeyal guddi ak bëccëg bàyyi wax na Imaam Xasan na ko mboolem maxtuutaan yi nga gis yëpp ci alaaji la jóge na ko bay daaw bindu. Quran imla ñu ko wax ñu bind waaye lépp alaaji ko bind kooku bu ñu demee ba yàlla may ñu ci jamono jii ñu fekkee ko ñun ñëpp di ko defal ziara képp ku fi fekk rek war nga sant yàlla. sànq Cheikh Ibrahima wax na ne képp ku fi teew rek yàlla na nga fekk si soxna te na nga fekk yàlla bis bi déwén. Cheikh Mouhamadou Bachir dégg ngeen ko moom itam ñaanal yàlla mbooloo mu fi nekk yëpp ñaanal yàlla waa kër Yoro gërëm leen loolu la sëñ Aliou Diouf doon jàng ne nañ leen jotal ko ngeen ñaanal waa kër Yoro ñaanal itam sëñ Alaye Limon Zéro bi nga xam ne boobu ba tey ñoom ak ñoom la ñu ñëw ci dëkk bi pour taxawal bis bi ku ñëw ba egsi fii da nga xam ne mbooloo mi dund caaxaan moo ko dajale liggéey moo tax lii mën a moo tax tant bi mën moo tax ni ñi mën a toog fii ci jàmm yëguñ sax ni ko digal seen liggéey la waaye ni ko seen bàyyi waxee yàlla dana leen fay yéen ñëpp ku nekk ceen yéen yàlla daa ko fay te da ngeen fay itam waa kër yoo ñi nga xam ne am nañ taxawaay bu rafet ci mbir mi ñoom ñëpp ko am nañ njukkal ndax leetar bii nga mujj jàng ci sa waxtaan loolu rek la doon waxee wax kër yow dina jubal waxtu bu nekk rek mu ngi mel ni leetar leetar bi koy jàng bi mu ngi mel ni li ñu toog nii fu nekk nii ñoom la ñuy waxal ci seen jikko yi kon kooku ziara bu rek moo ci nekk. defal ko lu baax itam tono rek moo ci nekk yàlla nag booy def lu baax dana la fay ba nga wax ne lii defuma ko su fekkee ne safaan itam. nga taxawee dana la fay ba wax ne lii yëpp defuma ko dañuy nettali ñu benn nit ñi dafa mas a door bàyyam ba daan bi mu demee ba doon mag doom bu góor dóor ko ba daanaka ko watal ba mu commencé watal mënoo ko emal fii man teg ko mun a fii ak sama baay safaan da nga ko feeku muy lu baax itam da nga ko feeku yal nañu yàlla diir ci def lu baax rawatina ci xadaratu sëriñ su mag si nga xam ne luñ mos a nangu rek yàlla def te buñ demee ba génn àddina benn bu leen yàlla daan defar rek defal na leen ko fukk te maqaam ngay ci lay gën a liggéey ci lay gën a am doole jara moytu lañ ñu jara wattu lañ yu jaar xitma la ñu tam ci ñaari boor yëpp ndax lu ci nekk rek da nga am pay waxtaan ni nga ci moom yow itam gërëm nañ ko kontaan nañ ci lépp lu yaakaaroon ci yow def nga ko wala def nga ko waaye barke boobu dana la topp sa mbir lekk ndax ku taarixal góor rek dundal ko rawatina nag ay jéem a dundal koo xam ne moom deew sa fan boo ko dundalee jiw yi ci nekk yàlla moo xam ne toll yàlla yàlla fayanteeg yow. yàlla la yàlla yokk laa yàlla ci baax na yàlla jokkale say tëgg ci waay te yàlla mun na mukk di gërëm di béy mi rek yëpp Cheikh moom vraiment kii di koy gërëm wax naa ne ci tool ay jotalee ñu ngi daan ci seen biir rek ñoom pour gërëm ci jotaay bi di ko ñaanal yàlla moo xam ne yàlla def naa te jox ko li bëgg yëpp ci boppam jox ko li bëgg ñëpp ko xam ndax ci xidma bu rëy la nekk ndax wax bu nekk ñu ngi dundal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci siira te man waraxa yarajulin faqad ahyaa comme ma ko sax kon suñ dundal yonent bi moo ngi sa lépp dana dund incha allah sa def suñ def dana barke te lépp loo soxee da ngaa dana barke doo sonn ci àddina doo sonn itam ëllëg doo am itam ku sonn ndax xam-xam bi nga taxawee ci li ko jot a waxtu rek. biir Sénégal ak ci biti Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp Cheikh Mouhamadou Bachir wax na ak ñi nga xam ne dañuy nettali naan bàyyi mu ne te bàyyi dem na lu yàgg ba am fukki at yu loolu jëm wala sax ñaar fukki at amoon nañu bàyyi dara su ma di jaay ma seen waxoon na ma ne ma fan yii da ngay gis lu kéemtaane ma ne ko loolu mooy dara dama bàyyi dama teg na ñoo toog ci minbar bi bàyyi leen ma yéen a may feral man mënatuma ko buñ dina nag ñi ko xamal dara ak ñi ko xamal dara yëpp saa ne xaw ñu saa ne xaw ñu yëpp daal sonn waaye am na ñoo xam ne suñu waxee rek nit ñi daañu xam ne ñii bàyyi moo leen ko wax ndax bàyyi boo xam dafa ànd ak leer te itam nga jamono am teg moom mu jàngal la yow boo waxee waxal nit ñi dañu ko xam moo tax nañ jël xibaar yi ci fi ñu ko war a jëlee ci ñu ko jàng wala ñu ko fekkeewoon ndax li imaam Shaafi'i wax inna haadha al-amra diinun fanzuruu amman ta'khudhuuna diinakum lépp luñ ciy jël rek dafa war a wér yàlla ñu ci yàlla dimbale yàlla ñu yàlla wattu xalifa bi muy Cheikh Ahmad Tijaan Ibrahima yàlla ko yàlla wattu yàlla yàlla may ko wér ba yi bëgg a taxawee yëpp mën ko taxawee yomb na yàlla dara ci moom yàlla ko defal. yàlla yàlla wattu ko xàqal euh, ko mboolem ay masaalibam ndax masaalibam bi mooy masaaliba bàyyi rek ci jamono bàyyi ba léegi ndax moom taalibe bàyyi la ko ba mu bàyyi la. moo tax lépp lu mu ko rek ñu wóoree ko yàlla fayal tey moom képp koo xam ne daal am nga benn yëngatu ko def ci bis bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla fayal tey moom. sëti Cheikh Alxaaj Mahamad Zeyn bi seen ay gërëm na leen ñaanal la leen ñu ngi feddali ñaan boobu waaye vraiment ni comme moom xas na ko war a def loolu yàlla saxal leen ci te yàlla di leen yokk daay man lépp lu ngeen bëgg a def ci dëkk bi ngeen mën ko def ndax loolu rek mooy yiw ñëw fekk sa baay yi nekkoon ci lu baax defe na ba loolu jarul gannaaw xanaa dafa yokk yéen a ngi taxaw ci yokk yéen a ngi taxaw ci biral ko yéen a ngi taxaw ci li nëbb woon ci moom lépp nit ñi xam ko yal na yàlla fay tegee buñ tëj nag lu may dañ leen jotal ne Cheikh Abdou Malick wax na ne jaayisa bu alquran bi def bi dina ci weer koor yi daawuñ ko tuddee kenn waaye ren léegi dinañ ko maamala yàpp lay ah jur gi tam dina palaasam waaye waxoon naa la jot daay bari aji na ko lépp lu nekkee ci yow rek benn yiw la ci yow bi boo demee sama moomu bul ko fàtte na mu ñàkk kon bu ñu ko tuddee jaayisa bi mu nekk bu ñu ko njëkk a tuddee kon yéen ñu tam dina palaasam yal na yàlla nangu leen wala ñu ci am itam yàlla nekk barke ñaar leen te yàlla ngeen ko yàgg na xamee bu baax la ngeen ciy gërëm bu baax a baax ndax ba ngeen taxawee ba léegi yokkute rek lañ gis ci alquran ci biir na tax na xale yi di defar seen alquran yi ngir mën a bokk ci ñi am jaay loolu yëpp fexe la pour saxal nit ñi ci diine ndax yonent bi nga xam ne moom la yàlla yónni te ku bugg nga jub nga jub def ku tuub du neexale la daal pour nga dëggu ci li nga ba ci jamono si daaw te daaw war nañ fi may dina ji soxlaatu di neex am fi may dina ji dëgër la waaye ñii ngeen di def ci alxuraan ba tuddee ko maam bu kawe la maqaama bu kawe la te wax ci kawe la dana ci képp kuy sëtal gën a ci kontaan yàlla yàlla nangul ñu ñun ñëpp bis bii buñ fi tasee déwén yàlla fekk ñun ñëpp kenn ku nekk. nga bëgg ci laay yàlla may na la ko. amiin li nga bëgg ci baatin yàlla may na la ko. te yàlla dundal ñu dund yu wér yàlla bu mu ñu rey léegi rey baaxul waaw dugg ci biir suuf baaxul. léeg-léeg liñ bëgg dañ koy ñaan rek moom moom lu ko tuddee yonent bi baax na lool. waaye yonent bi yonent bi la yow boo dundee juróom-benn fukki at ak ñetti dem taxul nga nekk yonent bi yàgg fi nag say yu baax yi yokk dara gënu si ay dama ko déggoon bu wax ne gudd moo gën ci ki baax moo gën ci ki nekk ci safaan mu ne ki baax ay baax baaxam mën a yokk ki nekk safaan tam bis dana ñëw mu dëpp daru caat kon nag yal na yàlla guddal suñu dund yi te guddal ko ci def lu baax waaw guddal ko ci def lu baax li nga xam ne moom la bàyyi yi nekkee woon ak maam yi yàlla nañu ci yàlla jox cër bu rëw ba yokkal ñu si loo xam ne sax ñoom defuñ ko woon waaye nee na jamono ngi nii yoo xam ne ku ci góorgóorlu tuuti rek yàlla na ko sa bàyyi mu ko def waaye mu ne ko mu tànn foofu yàgg ndax mu ne bàyyi mel ni ñoom jafe na. sakka di leen gën lii bàyyi ko wax ci daji bàyyi la ji astat doon digal baraxam doomam ne ko nanga góorgóorlu boo góorgóorloo mën ngaa def ci alquran loo xam ne sa bàyyi def koom waaye suba waaye tam bu mu tax nga foog ne yàqu gën ndax ñoom mel ni ñoom jafe na sax nga gën de yal nañu yàlla dimbale ci seen barke ñoom yal nañu yàlla jox liñ bëgg yëpp zaahir ak ci baatin képp ku fi am soxla koy dem yàlla fekk yàlla fay na ko képp ku fi am looy tawat yàlla ko la saafara képp ku fi am bàkkaar yàlla ko la far ku fi am jafe-jafe yàlla yàlla yombalal la képp ku fi am bor yàlla ko la fay képp ku fi am ku dem yàlla dellu si te dellu si jàmm yàlla ñu yàlla boole wuttu ci lislaam wuttu ñu ci gëm yàlla Madina gële bi Madina Baye Baye wax na ne boo ci Madina yonent bi moo ko diree waaye boo dugalee cër ñu ñaan yàlla yàlla na jëlee ko ci kër Yoro gi yàlla na jëlee ko ci waa kër Yoro yàpp boo ci alal ma Zeynabu yàlla na fi jëlee ko ay ñaanam ay bëgg-bëggam lépp yàlla ko yàlla dëggal ci dëkk bi dëggal ko itam ci ñi dëkkee dëkk bi dëggal ko itam ci jawaati boppam ak ay sëti boppam yàlla mën na loolu yàlla ko def maa ngi ndokkeel Cheikh Mouhamadou Bachir xalifa maa ngi ndokkeel itam Cheikh Tijani maa ngi ndokkeel Seydi Arabi maa ngi ndokkeel Ibrahim maa ngi ndokkeel itam seen ak seen i jarbaat yëpp góor ak jigéen Seydi Arabi maa ngi ci waxtaan bi nga def ci am fayda waxtaan woowu ah? waaye wax na ci loo xam ne sax nit ñi ah man day ci guddi laa ko doon déglu ah, faydu tijaan jox ñu ñuy naan